ba ñu duggee ci atum 2000 ba nëga ni euh, daanaka sëy yu tas yi day gën di bari ci dëkk yu mag yi rawatina fu ci mel ne dëkk ba sell bi di Touba. fukki sëy yooy jël juróomi sëy dañuy am ay jafe-jafe ba tas laata seenum at di dellusi si loolu nag mën a andi ay gàllankoor waaye Cheikh Omar Bamba Diop di ab sociologue di fësal ne loolu li mën naa fësal raté fondement sëy bi laataa ñu ciy dugg. xam nga wàllu sëy dafa am mook tabaxayam dafa am tabax soo ratee fondement bi rek. raté nga raté nga euh, bâtiment bi ñi ki sëy tamit dafa am ay fondement yoo xamante ne suñ ko ratee rek pour sëy bi dox dina jafe maanaam sëy du transaction économique sëy du transaction économique sëy alliance stratégique sëy ànd ngir yàlla la complémentarité la. sëy yi di tas lu bëree bari ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci cause yi nga xam ne ni moom moo koy waral mënees na ca lim ñetti mbir maanaam belle famille bi maanaam goro yi ak njëkke yi ñàkk bëggante ak yeneen i mbir yoo xam ne nii mën naa waral buñ demee ba ci digg ba mu indi ak tas. ki nga xamante ne dafa ñëw di sëy moo xam jigéen juy ñëw di dugg ci góor te ba mu ciy dugg dara dugalu ko ci lu dul essayer d'avoir une survie économique su ko ci gisut sëy ba day yàqu. koo xamante ne dafa dugg ci ab sëy def ko alliance stratégique moom dafa bokkoon ci askan wu suufee. wala boo kii day un fils de mu di ca dem ngir yokk ci statut social am su demee bu ko ji gisul sëy ba day tas. fii ci sunu réew sunu cosaan sunu histoire yëpp day confirmer ne nit du sëy ak nit kese waaye booy sëy ak nit da ngay sëy ak environnement bi ko war bépp waxuma la sax ay bokkam waaye sax mag ñam dëkkal ca dëkk ba sax dañoo bokk ci sëy bi loolu nag boo bëggee dugg ci sëy te lool it sóoraale woo ko loolu sëy boobu mën naa am ay jafe-jafe kon belle famille yi. maanaam euh, ne pas rater le mariage dès le début yooyu yëpp da cee bokk tas nag nekk mbir moo xam ne nii suñu boroom moom moo ko daganal waaye nekk mbir mu bañ lool man itam indi ay gàllankoor ci suñu société bi ndax fépp fu mu am diggante ba day xotteeku te mën naa indi ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum noonoo waaye itam mën a indi ak ñàkk équilibré ci njaboot ga nga xam ne moom moo jëm ca boobu boobule sëy ba tax seen avenir ñu mën cee laam-laame waaye itam seetlu ci ay gàkk-gàkk ba tax ñu bari ci askan wi di ko daw lu ñu mën terewul mu di topp saa su nekk waaw xam nga tas nag moom eh, inconvénient inconvénient bi ci jiitu rek mooy yàq gi muy yàq ak bokk ndax kenn ku nekk soo tasee ci kër soo ko wax ak soo ko waxut moom ñooñu moom soit da nga leen jàppe ay noon wala ennemi wala adversaire waaye dootu leen mën a jàppe moom danga leen jàppe woon ba tax na bari boo gisee sax bu njëkk eh, ngay dégg ñoo xam ne naan bëgguñu sëyu mbokk mooy day am sëy yoo xam ne bu tasee rek yàqaale mbokk ga bu tasee rek yàqaale mbokk ga euh, am na ay inconvénients yu bëree bëree bëri amat ay inconvénients it ci jariñu xale yi parce que psychologue yi xam nañ ne xale yi nga xam ne dañoo nekk dañoo juddoo ci couple yu divorcé ñoo gën a euh, déstabiliser leen ils sont déstabilisés dès la dès la naissance ba tax na loolu day dépendre ci seen psychologie day dépendre ci seen personnalité par rapport ak xale yi nga xamante ne dañoo nekk ci mariage stable ñoom ñooy gën a amuk dal ñoom ñoom la ñooy gën a am ubbeeku xel